lu jëm nag mbirum politique journal bi lee di l'observateur mu ngay daal xamle di kii di njiitu réew mi di Macky Sall ak nga xamante ni mooy Mame Boye Diao nekk maire bu Kolda doon amal ab waxtaan ñu daal fàttaliku rek moom mi lee di Mame Boye Diao nekkoon nag ex-DG de la caisse de dépôt et consignation moom mi leen nag gannaaw bi nga xamante ni rek daal woon déclaré candidature am ne nag day nekk candidat si élection présidentielle présidentielle atuma 2024 njiitu réew mi di Macky Sall rek def ko daal di limogé woon ci postam boobee ñu daal di koy remplacer kii di Cheikh Issa Sall gannaaw bi lee annonce bi nga xamante ni rek daal di woon na ko def mi di Macky Sall nag jamono ji gannaaw loole rek daal di woon na ko ñoom ñaar ñi leen ñu daal di amal ci lu kenn yëgul ba tey nag ci wàllum politique kii kii di Amadou Ba waaye

baax ci anam yi nga xamante ni rek moo tax mu daal di teg suuf candidature bi nga xamante ni rek bëggoon na ko déposé ngir rek moom tamit mu bokk ci jongante ci élection atum 2024 waaye nag moom mi de mu daal di xamle ni loolee gannaaw rek bi nga xamante ni dañ nay amal ab waxtaan bu yaatu si ak kii di njiitu réew mi di Macky Sall moom mi de rek daal di nay teg suuf loolee di daal di topp gannaaw ci ki nga xamante ni mooy Amadou Ba ngir rek mu am ndam ci élection présidentielle atum 2024 ñu dégmal.